wa enseignant décisionnaire yi euh, dafa nekk euh, benn sujet bu am solo te waxtaanoon nañ ci bu euh, lu yàgg d'ailleurs avec syndicat yi waxtaan ci tamit ak suma collègue de la fonction publique moom tamit mi ngi ciy dox ay jéego yu am solo te defe naa ni très prochainement am na yoo xam ni war nañ ko mën a proposer parce que ci diggante bi ñun dinañ am atelier avec syndicat yi ñoom tamit am nañu ay proposition yoo xam ne bëgg nañ ko teg ci kaw table bi te euh, ci conclave googu atelier yooyu euh, ministre fonction publique dina ci teew inshallah waxtan nañ ci te jël na engagement bobu te mom sax mi ci liggé liggéey te dox na ci ay djégo yu am solo te ce sera l'occasion aussi mom tamit mu meuna partager ak ñun euh, acteur du ministère de l'Éducation nationale euh, gis-gisam ak nak la ñuy problème bobu may profiter ci occasion bi di euh, aborder aussi kaawu animateur polyvalent yi dañu bëgg régler aussi sen problème mais liste bi ñu am ak information yu ñu jot mooy ni souvent am na loo xam ni dafa am ay fictif am na loo xam ni xëy na nekkuñu ci liggéey bi seen bopp donc liste boobu euh, dañ ko bëgg saytu te defe naa une semaine 10 jours dina doy sëkk pour ñu mën ko auditer euh, xam ñi nek acteur deug nek ci biir ak ñu ci bokul euh, suñ ko léralé rek li ci top moy euh, des formations yi jël décision yo xam ne war nañ ko jël pour que jamm ne ñoy et puis ñëpp sentir sen bop euh, ñu mën leen accompagner.